sama paat sama paat sama paat ci naa ni lii daal fas yéene gën a yeesal sama jaayante Sëriñ Tuubaa ne seen jéego yi ak jataay bi da ciy fas gën a fas yéene gën a yeesal ak jaayanteem ak Sëriñ Tuubaa te di leen ko seeral nag nee na mi ngi leen di seeral na it mi ngi fas yéene gën a fàttali ak laxasaayam te fas ko yéene ànd ak yéen mu ne ngeen xam ne itam yéeney mbégam yéeney wéttalam nee na ab soññam itam nee na ni koy waxee rek mooy maam Thierno ni mu demee ci moom te yéen ñii ngeen di jëmmi maam Thierno ji taxaw fi moom nee na da cee sant yàlla bu baax a baax nee na na yàlla ne mooy sunu lépp tey ëllëg nee ko wax waaye da koy waxaat ne amul kenn comme nangu mu gën koo bëgg maam Thierno nee na xëy na xamul lépp waaye lam ci xam doy na la ci ëpp nag Serigne Bassirou moo tax mu xam ko ci lim nee daa xam Serigne Bassirou foog maam Thierno tolloon mu ne day wax ne sëriñ basiiru li mu jàng gis ko ci téere yi nee li mu jàng ci téere yi gis ko wala li mu dégg wala li mu xam amul kenn koo xam ne Serigne Mountakha xam na ne Serigne Bassirou gën naa naw kooku ci maam Thierno nee loolu bu yàgg la ko waxoon danañ da ko yeesalaat ci jotaay bi rek. moom nee na loolu la gëm moom sëñ nee na loolu it lay dund ci maam Thierno nee na leen koy seeralaat kon waaw mun mun na jataay bi lim ci yëg dafa amul lenn lu mu ci mën a leeral fi ko àgg ci mbégteem ci soññ gi mu koy soññ ak dolli gi mu koy dolli yaakaar jataay bii li mu ci yëgee mënu koo misaal ci ci làmmiñam nee naa rek gën a yeesal ak cant bu baax a baax nag mu ngi yónnee di yasal ak cant ak ngërëm ci sëriñ Abbas ak xelam mu dal nee na muy gën a sos gën fees di gën a yeesal mbégte mbégte mi nga xam ne am na ko ci yéen di leen sant di leen gërëm loo xam ne Serigne Touba rek la koy seeral nee na loolu mooy lim ci mën a wax filandaari lay daam lay daam lay فاتح سيما فاتح سلنغاري بايدام ورناني لين